alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain mbokk yi ñu ngi ubbee suñu xutba ci sant yàlla subhaanahu wa taala di ko kañ di ko bàkk di ko màggal ci ay turam yu sell ak i melokaanam yu mat di gëm di seede di dëggal ni moom rek mooy yàlla jaamu ko mooy jur njariñ ñàkk koo jaamu mooy jur lor fii ci àddina ak ëllëg àllaaxira mbokk yi ñu bokkal yàlla suñu xutba tey day sofaat nañ ko rek ci xutba imaam bi wàccoon ajjuma bi passé muy al imaam muhammad li ayyadahu llahu wa nasarahu wa ammara muy fukki fan yi nga xam ne bu fekkee jaadu nañu naan yàlla dafay am promo ci fukki fanu promo yi lañu toll di fukki fan yoo xam ne lu ñuy jëfal yàlla gënal na ko waaye ci fukki fan yii moo ko ci ëppal solo lépp lu waay mënoon cig mbaax na góor góorlu dolli ko ndax kat loo ci def dañ la koy fulal keroog bi ko yonent bi dee jàngale ba wax ko saxaaba yi dañu ko laaj ne ba ci jihaat sax mu ne waaw li ñuy defal yàlla ci bés yi day moo gënal yàlla ba ci jihaat ba yàgg mu def istisna mu ne leen lu muy koo xam ne dafa génnoon ak alalam ak bakkanam benn dellusiwul kooku rek nga mënta jot ci jëf yi ngay jëf ci jëf yu baax jamono bi waaye ku dul kooku jëf yi ngay jëf ci jëf yu baax jamono bi moo ëpp la muy am muy ci jàng alquran ba muy ci julli ba muy ci jokk mbokk ba muy ci saraxe ba xaluma jaro lépp lu waay doon def rekk ci mbaax na góor góorlu ci fukki fan yi yokk ko yëg ne fukki fan yi moo gënal yàlla loolu nag coobare yàlla la ndax yàlla mooy def bind lu ko soob tànn ca la ko neex mu gënal ko noonu la bindee malaaka yi moom yàlla génn ci ki ñuy wax jibril mu gënal ko noonu la bindee ambiya yi génne ci ar rusul génne ci ar rusul ulul azmi min ar muy juróom mu génne ci ulul azmi min ar rusul muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ku ko gënal noonu la bindee weer yi jël ramadan mu gënal ko noonu la bindee bis yi tamit jël ajjuma mu gënal ko loolu coobare yàlla la mooy def lu ko soob noonee it la jëlee fukki fan yii mu gënal ko ci mbooleem fan lépp lu waaye di def ci jaamu yàlla fukki fan yi moo ci gënal yàlla loo ciy déggee mooy kon naa profito ndax kat buntu tuub ubbeeku na ndax yéen ñëpp bokk ngeen jàng ak man ci alquran ne moom yàlla day gafurun rahim jàng ngeen ko waaye qaabilu tawbati day nangu tuub am na ci ay bàkkaar yoo xam ne nit ki du ko jéggalu te yàlla da ko koy jéggal mooy ci jamono yi yàlla baax bi mu baax ci doomu aadama moo tax daf koy ubbil sens sens bu nekk daf koy ubbil sens mu mën a ñëw tuub yàlla day xéewalal doomu aadama di ko xéewalal ba jamono bi doomu aadama di mooy yàlla sax yàlla daf koy fay fekk di ko xéewalal ndax bu neexoon yàlla jamono bi waa ji egsee ci mooy yàlla yàlla ñëw ci moom waaye yàlla daf koy dolli wér muy mooy yàlla yàlla di ko dolli alal muy mooy yàlla ba pare nag yàlla di ko xaar ci mu ñëw tuub mu nangul ko mooy xaabilu tawba kon li muy tekki mooy yàlla daal ku baax la ci ñun foo ko natt nag wees na ko kon li waay doon def mu nekk loo xamante ni bakkanam la seytaane la àddina la yàlla bëggul na tuub ci jamono bi yàlla nangul ko ñoo ngi ñaanal mboolem xujaat yi nga xamante ni ñu ngi ci xaram bi di def seen jaamu yàlla googu ñu tuddee acc yàlla na yàlla nangu leen xam ngeen ne jamono bi ñu ngi ci bërëb boobu ñuy wax arafa ñoom ñëpp nag di yëkkati seeni loxo di ñaan yàlla jamono bii la yenent alayhi salaatu wasalaam wax ne yàlla day ñëw ba ci asamaan yi àddina toog fa naan malaaka yi kaay leen yéen a doon wax ne damay bind ci kaw suuf ñuy yàq kaw suuf ñuy tilimal kaw suuf ñuy tuur deret ci kaw suuf kaay leen xool samay jaam ñoom ñépp ci labayk allahumma labayk labayk la sharika laka labayk mbokk yi mu nekk bés boo xam ne Aïcha wax nañu ci xadis ne yonent bi nee na ko li ci yàlla di goreel nit ci safara du am ci beneen bés allahu akbar ñoo xamante ni bindoon nañu seen not dugal ko ci waa safara tey yàlla ci mbaaxam mu jéggal leen ci mbaaxam gafuur raxiim bañ la waxoon la la nga cay dégge mooy kon kat naa gaaw tuub yàlla jéggal ma yàlla nañu yàlla jéggal suñu mboole mi bàkkaar la ñu tey ak li ñu teyut yàlla nañu ko yàlla jéggal mbokk yi bu ñu bokkee yàlla ñu yëg ne doom aadama ñëwam ci kaw suuf ñëwul ngir toog fi déedéet ñëwul ngir sax fi ndax boo xoolee sa maamaati maam dem na noonu la ñuy toppalantee bay dem na doom dem na noonu la ñuy toppalantee ba sët ñëw di dem ñun ñëpp dañuy dem waaye bu ñuy dem li ñu fay jëriñ mooy ngëm yàlla yàlla nañu ko yàlla defal ndax bés la boo xamante ne yàlla ñu wax ne doom jëriñu fa lu ñu bari bari bari alal jëriñu fa lu mu bari bari bari allahumma lu muy koo xam ne dafa dikkal yàlla ci xol bu laab xol bu set xol bu fees dell ak imaan yàlla nañu ko yàlla defal mbokk yi kon bu ñu bokkee yàlla nañu yég ne bés mi nga ñuy xaar bés boobu ñun ñëpp daañu ko fekke kenn du ko wuute dama leen di faral di wax ne ku woote dinañu dem ne am na ku ñëwul ñu ne ndax lan dafa am ngànt daa dem place sàngam moo tax ñëwul waaye yàlla bu wootee bésam boobu nit dina ñëw jinne dana ñëw malaaka dana ñëw lu yàlla musa bind da nga ñëw kenn du ko manqué yàlla nag fay jaam yi seeni jëf su rafetee fa lillahi alhamd su ñaawee nag yeddal sa bopp ndax muhammad sallallahu alayhi wa jaar na fi ay sahabaam jaar nañ fi na jaar nañ fi ñu baax ñi jaar nañ fi nga toppoon sa bakkan toppoon seytaane toppoon àddina ba dee ñëw ci yow kon nag yeddal sa bopp bul yedd kenn mbokk yi bés boobu la yàlla di wax ne wal waznu yawma yow ma xaq la lañuy posé jëfu jaam yi di ko ko peesee dëgg la képp ku fa indi lu baax danga ko fay fekk mu di la xaar nga indi fa safaanit da nga ko fay fekk mu di la xaar am na ci nag ñoo xamante ne seeni jëf yu baax bari woon na lool ba ñu naw seen bopp ba lenn sax ci jaami naan kii de yàlla yàkkamti na ko ngir teral ko waaye ndekki jëf ju baax ja defoon ca kont ba yépp retiré na ko nan la ko retiré mooy julli yi bari woon na lool woor yi bari woon na lool natt azaka saraxe dox mbokk bari woon na lool waaye dafa sëggoon ci deru jàmbur yi di bakkaar guddi ak bëccëg moo tax kont boobu kont la boo xamante ne li mu nangu mooy dee dugal waaye bul fa génne dugal bi mooy bépp jëf ju baax boo def rek dugal nañ ko ci compte bi xam ngeen yàlla ni mu bindee jullit bi daf ko booleek ay malaaka ñu nekk douze malaaka quatre di ñëw quatre di dem muy huit ak ñaar ñooñu nga xamante ni ñooy kiraaman kaatibiin yaalamuuna ma tafaaluun ñuy bind ay jëf te kenn ki nag ki nga xamante ni mooy bind lu baax sax nag mooy seefu ki nga xamante ni mooy bind safaan moo tax kiy bind lu baax bu jaam bi tàbbee ci mbaax rek automatiquement day bind waaye bu defee sofaan ki war a bind sofaan bi balaa bind da koy laaj ci mbaaxu yàlla ne ko ndax ma bind mu ne ko may ko sens tuuti ndax dina tuub allahu yàlla moo bëgg ay jaamam su tuubee waa ji du bind su tuubul nag mu doo ko bind moo tax waa ji dafay verser ay jëf yu baax di verser ay jëf yu baax ñëw yowmal qiyaam ndekki lépp retiré woon na ko yàq deru jàmbur jël alalu jàmbur jam jàmbur xaluma jara kon foofu li mu nangu mooy jëf leen jëf ju baax ëllëg di ko fa fekk waaye ngeen moytu ay jëf yu safaan ndax dafay màbb seeni ngëm ba pare màbb seen jëf waaye bu fekkee waa ji féeteerlu la topp bakkanam topp seytaane topp àddina ba dee ñëw ci moom foofu la ñuy wax nag lalu rëccu mooy egsi na fa nga xamante ni fa la ko yàlla doon xaare te nag fii moom nit amewu ko maqaama nit amewu ko martaba ba mën laa yëkkati fii nga tëdd moo tax alquran mu ne wa zanna annahul firaaqu tey moom du moccukat du docteur du kenn ku la mën a jëlee ci tëddin bi ndax lan tànk ya jóge na fa xam ngeen nit dina am tànk te dox du fa nekk ñun nag jàpp nañ ne ku am tànk rek daa war a dox déedéet tànk tànk la dox dox la yàlla day bind tànk ba pare roof ca dox kon daa bind tànk bind dox kon bu ko neexee waa ji am tànk mu rocci dox waaye dafa jox waa ji tànk ba pare jox ko dox moo tax bés dina ñëw mu rocci waat dox waa bu buñ ko yëkkatee du mën a taxaw ay tànkam day diiree ko dañ koy jàppoo yàlla mu ne wal tafati saaqu bi saaq ila rabbika yawma idinil masaaq tey dox bi dem na noonu la ko yàlla di toppee benn benn di jël la mu ko defaloon ba ba muy ñëw nag di wuy ci borom bi subhaanahu wa taala yàlla na fekk mu nekkoon ku topp yàlla yàlla na fekk mu nekkoon ku topp sunnas muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp nag dañuy ñibbi kenn du gunge kenn gis ngeen gunge bi ñuy gungante waay waay fii la yem ci sëkk yi waaye bu ñu xasee egsi ñu ne ana néew bi ñu ne ña ngay defar bu ñu paree ña koy gunge bu ñu demee kenn du dugg moom dong mooy dugg te loolu la leen yàlla waxoon ne woon naa leen bind naa leen fii laa leen bindee danaa leen rey kenn par kenn danaa leen dekkal yéen ñëpp moo tax ñi gëmul dekki dinaa leen wax benn qissa boo xam ne yonent bi nettali na ko saxaaba yi ci banu israil toog ba yàgg yonent bi ne leen dafa am benn taifa bu jógoon ci banu israil di dox di dox ba yàgg ñu ne ñun tee ñoo dem ci bàmmeel yi ñu ñaan yàlla julli ñaari ràkka ñaan yàlla mu dekkalal ñu fa kenn mu wax ñu mettitu de nu mu mel yonent bi mooy nettali nee na ñu dem ba ci bàmmeel yi ñu julli ñaari ràkka ñaan yàlla mu dekkalal leen kenn ci ñu fi tëdd ngir ñu laaj ko mettitu dee nee nañ dañoo jékki-jékki rek ay salaatu mu ne benn bàmmeel ne taf xar benn waay jóg nee bi waa ju jógee ñi ngi gis ci jëbi asaru sujud mu ngi am benn tampon ci comme tampon julli leer nañ daal di ne leen yéen sama gaañ yi lan ngeen bëgg waaye xanaa yëgu leen ne bi ngeen ñaanee yàlla mu delloo ma sama ruux ma dekki ba tey maa ngi yëg tàngooru dee nga la waaye ñaan leen yàlla ma tëddaat fi ma tëddoon allahu akbar nee leen dee naa nag téeméeri at mi at sana dee naa ko waaye bi ngeen ñaanee yàlla mu delloo ma sama ruux bi ma dekkee maa ngi yëg tàngooru dee ci sama yaram la muy tekki mooy mbokk dee metti na nañ ko waajal inna lil mawt la shakarat yent bi loolu la doon wax dee am na mettit dee am na wextan kon nañ ko préparé ci jëf yu baax nañ ko préparé ci jokk mbokk xormay bés yi war naa jaral jullit bi mu jokk képp koo xamante ne digganteem ak moom dogoon na xatta jigéen ji doon sëy sax xormay bés yi war naa tax nga jokkaat sa borom kër baalu ko àq yow mi daggoon sa mag wala nga daggoon sa rak wala sa dëkkandoo xormay bés yi na la jaral nga jubóowat ak moom ndax kat ku bàyyi yàlla bàyyi la ku suturaal yàlla suturaal la kon nañu delluwaat ci jàmmoo bëggante tàppoo joxante xol bu ñu ko defee rek incha allah yàlla def ñuy jéggal suñu mboolee mi bàkkaar te dañuy daje aljana ëllëg yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nag waar na ma waar na leen wattaqu yawman turja'una fihi ila allah bàyyi leen xel bés boobu nga xam ne yéen ñëpp dañ leen di fang delloowaat leen ci borom bi subhaanahu wa taala mu delloo leen seeni jëf yi ngeen jëfoon kon li ñu war mooy nañu préparé dajeeg suñu borom ñun ñëpp nañu préparé nañ ko préparé ci mbooleem jëf ju baax jëf ju baax nag buñ ko waxee mi ngi yem ci yenent yàlla muhammad la mu jàngale loolu mooy jëf ju baax oustaz wax na ko fii keroog bi muy wàcc ci minbar bi nee leen lii tax yàlla nangu jëf aji jëf mooy daf koy dëppaleeg li yenent bi jàngale ba pare nag mu teg ko ci kaw sellal maanaam mu def mbir mi ngir jëmm yàlla su dul loolu rek da ñëw ëllëg yaakaar ne am nga ay jëf ndeke say jëf yëpp haba am mansuura yàlla nañ ci yàlla musal mbokk yi kon nañu préparé ñun ñëpp ci tuub ci suñuy bàkkaar def al inaaba mooy delluwaat ci borom bi subhaanahu wa taala mbooleem jëf ju bon ju ñu defoon nañ ci jéggalu yàlla yàlla na yàlla boole jéggal ñu suñu mbooleem bàkkaar gëmal ne nag yàlla day dekkal ñun ñëpp ñi dee ñu ngi ci biir bàmmeel yi demaguñ fenn ñépp la yàlla di dekkal kenn ku ci nekk la nga jëfoon ñu jox la ko xoolal nag waxoon naa la léegi su baaxee yow la su dee safaan ba yeddal sa bopp mbokk yi ma bokkal yàlla pour nga gëm loolu day dinga gëm alquran ak man ne yàlla dekkal na waajoo xam ne rey nañ ko bañ ko reyee am sikki sakka kan moo ko rey yàlla ne nañ dóor ci yàpp nag boobu waa ji bu ko defee dana ko dekkal bu ko dekkalee dana wax ki ko rey ñu jël ca yàpp ba dóor waa ji waaj a dekki ne diw moo ma rey li muy tekki mooy ki mën a dekkalaat benn bakkan mën naa dekkal bakkan yépp kon nañu gëm ne dañuy dekki lan mooy suñu problème ba ñu gëm ne yàlla moo ñu bind ñu gëm ne yàlla moo ñuy rey te gëmuñu ne yàlla dinañu dekkal lu tax wolof mu ne ki dikk dig ndékki indi ko dig la añ andi ko bu la reer war nga kaa gëm kon gëm leen na yàlla dinañu dekkal suñuy jëf yàlla danañu ko fay bokk yi Tabaski nag mi ngi nii di ñëw bés bu baax la ci woor muy arafa Tabaski moo ci topp lan moo ci gën dara gënalu ci yàlla tëddal gàtt rendi ko mu nekk nag sunna boo xamante ne sunna yi abina ibrahim la mooy suñu baay Ibrahim moom moomee nga xam ne li yenent bi di am am maqaama li muy rëy rëy rëy martaba moom lañ ko royloo moom maam Ibrahim moom lañu ñu royloo suñu yenent yàlla Muhammad waa lan moo tax ñu royloo ko ko moom xalilullah la waaw xalilullah la waaye dafa nanguloon yàlla kon da ngeen di déggee ci ne ku bëgg a jubóog yàlla dangay ngay nangul yàlla yàlla nañ ci yàlla tàggat lan mooy nangul yàlla mooy dugg leen ci islaam yéen ñëpp joxe leen seen bopp joxe leen seen alal joxe leen seen doole comme ni ko saxaaba yi defee woon saxaaba yi bu laajee bakkan dañ doon dee bu laajee alal dañ ko daan joxe ba du ñu dese dara waaye bu laajee temps sax dañ fa daan fanaan ndax jàng ngeen ci histoire ne Abu Bakr Umar yonent bi daan nañ toog ci mbiru jullit ñi ba dégg Bilal di noddu pour nañu ñëw julli si fajar kon islaam daf lay jaral bu laajee bakkan dañ ko koy jox bu laajee deret dañ ko koy jox waaye bu laajee alal dañ ko koy jox ibrahim alayhi salaam keroog bi ko yàlla wanee ci ay gént ay gént laa wax de ne ko rendil sa doom jaamoo ma ko ibrahim nekku fa di dengi dengi ndax xam na ne lii ndigal la pour wax la rek inqiyaadu lillah al inqiyaad lillah wommatu yàlla rek lañ koy defal mu nangu rey doomam yéen ñëpp natt leen ñi a jota am doom nan la doom mel ci xol yéen ñëpp natt leen ko kii ñu ne ko rendil sa doom te ba mu koy am boobu mage na imaam wax na leen ko ci ajjuma bi paase ba mu koy am boobu mage na mu nangoo rendi doomam jaamoo ko yàlla keroog ba muy jël doomam pour rendi ko fekkoon na fa ñaari soxnaam kenn ku ci nekk am na doom mu jël kenn ki kenn ki am na doom ñu waccal ko doomam kenn bañul kenn contesté wul ñoom ñëpp dañoo nangu li ma la bëgg a wax foofu rek mooy Ismaïl keroog ba ñu ko bëggee rend baay ji jël paaka paaka bi ñaw lool waaye bàyyi leen xel ne paaka paaka la dagg-dagg la ndax yàlla moo bind paaka def ci dagg yàlla bind bët def ci xool ñaata ñoo am bët te gisuñu yàlla bind nopp def ci dégg ñaata ñoo am nopp te dégguñu xalumma jara noonu la bindee tànk def ci dox noonu la bindee paaka def ci dagg keroog Ibrahim bi mu yëkkatee paaka bi war a dagg yàlla nangu dagg Ibrahim bomb bomb bomb ba sonn mu ne loog man paaka bi nangu dagg ab xeer bu ko jege mu ne ci taj paaka bi xeer bi dagg ñaar mu ne loog paaka bi ba nanguwul dagg der bi nangoo dagg xeer bi Ismaayil ne ko xifeet ci bët ya ne ko yow sama baay xam naa ni sa xol moo àttanul jàkkaarloog man ci samay bët di ma rendi takkal samay bët ngir dootoo ma gis bu boobaa di nga mën a rendi allahu akbar doom ji moo wax loolu baay ji ne ko yow baay maa ngi lay dénk takkal samay tànk ba bu ma wéqu ndax mën naa wéqu gaañ la samay tuyaaba wàññeeku yow baay maa ngi lay dénk yére bii ma sol ngal la ngalawaay bu mu taq deret boo demee jox ko sama yaay mu di ma ko xoolee waaw bokk yi lii doy na war ci doom baay takkal bët ba bul ma gis ndax soo ma dee gis ñeewantu mën na laa jàpp doo def sa ndigalu boroom bàyyi takkal samay tànk bu ma wéqu ndax dee daa metti mën naa wéqu samay tànk dal la samay tuyaaba wàññeeku waaye bàyyi sama yére bi bu mu laal deret boo demee joxal ma ko sama yaay mu ma ko xoole ok nangu rek lii la nangul bàyyam nañ ko natt nag ci ñun kan moo fi am sa waajur weer sax day dee sa soxna ne la sa papa ñëw na ci kër gi ngay taxawaalu ngir bañ a egsi ndax xam nga ne paa bi xaalis a ko fi indi ki nga xamante ne bakkanam lay jox waajuram ngir lan na topp ndigalu yàlla ci moom moom bakkanam la jébbal yàlla ngir topp ndigalu yàlla soxna sa nangu ci doomam ñu rendi ko ñoom ñëpp topp ndigalu yàlla lii mooy nangu lii moo barkeel mbir yëpp tey yéen ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi dem di wommat xar ca daral ba doomu jàmbur la aha kañ doomu jàmbur la da koy indi ba ci kër gi sangu ba set tuwaaletu jël sa paaka dawal ci baat bi mu nangu xikma la yàllaa lay jàngal dafa la bëgg a wax ni xar mi nangoo nangu nangulee la ko galla waaye nangulee ma nii lii rek mooy xikma tabaski kon kenn ku ci nekk na nangul yàlla mbokk yi nangu boobu famille boobu nangu woon tey moo jur makka zam-zam yi ngeen fay dégg yépp loolu moo ko jur barke bi fa nekk benn meññeent ñoru fa te fu meññeent du ñoree ñu tingoom ko indi ko foofu le nangu moom moo ko indi kon mbokk yi yàlla nañu yàlla defal ak nangu nañu bàyyi xel bu baax sunna la sunna suñu maam Ibrahim ku ko mën def ko moom moo gën bu ngeen di ñëw ci julleekaay bi sangu leen am sol leen yére yu rafet taamu nañ ci yére bu bees boo ko amul solal yére bu rafet ñëwal ci julleekaay bi yoon bi nga jaaree bi ngay ñëw booy ñibbi jëlal beneen yoon nga jaaree ci yoon boobu la loolu mooy sunna yéen ñépp balante leen xàq kenn ku ci nekk na baal moroomam xàq yam ko amee bu fekkee ca kër ga ngeen nekk góor-góorlu leen ngeen déggoo joxante loxo kenn ku ci nekk jéggal moroomam mbokk yi yàlla nañu yàlla bokk jéggal suñuy rëcc rëcc yàlla nañu ko yàlla jéggal yàlla nañu yàlla def ay jullit dëgg nañu bàyyi xel ne du lekk ak naan kese mooy bés bi déedéet ay fani jaamu yàlla la ay fanu fàttaliku Ibrahim ak istuwaar bii ma leen nettali fa mu jaaroon ak njabootam bu ko defee yow soxna sa nangul ni famille boobu nange woon waaye yow doom nangulal baay ni Ismail nange woon waaye yow baay nangulal yàlla ni ibrahima alayhi salaam nangule woon yàlla lii rek mooy xikma bi yàlla nañu ko yàlla defal kon nag inchaa allah pare nañ pour def ko fi ëllëg ci 9 heures inchaa allah daañu dundal sunna soosu ci jàkka ji képp koo xamante ni pare na pour ànd ak sunna soosu incha allah na ñëw 9 heures 9 heures et demi yàlla nañu yàlla nangul oustaz yi nga xamante ni ñoo fi jóge tey nekkoon ak ñun dañ ñu jàngal nekk ca bërëb bu sell boobu ñu ngi leen di ñaan seen coono yàlla bu mu leen réer yàll na yàlla fay leen ngën ji fay yàll na yàlla taxawu leen oustaz yi dañ fa am rôle bu mag mooy aj foog ñu jàngal la ko nga doog koo mën moo tax ñoom dañ leen di ñaanal yàlla waaye ñoom tamit ñi ngi sàkku ci ñoom ñaan nañ ñu ñaanal yàlla ba déwén ñun ñëpp ñu bokk incha allah te ña fay dem yàlla mën na ko yàlla na ko def incha allahu rabbi ñu bàyyi xel loolu kon suba képp ku pare pour ànd ak sunna na ñëw dinañu julli fii 9h 9 demi rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar allahuma aizza al islaama walmuslimin wa azilla alshirka walmusrikin wa dammir aadaaka aadaa ad din wajal amwalahum wa zarariyatahum ganimatan lilmuslimin wa najjina min kulli bala wa riban wa gala wa taawunin wa zinan wa waba tahir min jamii baladana xaasa wa bilada almuslimina amma wa salli llahu wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain qumu ila salatikum yarhamukum allah